alhamdulillahi na ngeen di sant rabbal alamin dooma di baay kii du keneen man naa defar waa xarnu bi alhamdulilah na ngeen di sant rabbal alamin dooma di baay kii du keneen mën naa defar wa axar nu bi alhamdulilah na ngeen di sant rabbal alamin di baay kii du keneen mën naa defar waa xarnu bi yow mi la géeyal Mustafa bul fàtte amdil Mustafa ak doomi baay Mustafa amee mbooti xarnu bi mat na xalifatul xadim fees na palaas te mat na doom te na xam-xam ami koom mën naa musal waa xarnu bi waaye taa feeru njolaaminata yaa dondu njol aminata tuubaa di yaay weer witim waa xarnu bi ay tabe goreek talinda joor la moome saalu makka joor ku laaj mu joxolal lay sa te mës la gàntu xarnu bi yaa neexa wayte neexa taas ngir xarnu bi amoo ci maas la dale ba weesu faas yow la ñu jébbal xarnu bi waaye raa yow wi yaa ko yaa teggi tuur ba daw basar ngir naaru góor fa sufar rawante wuñ ci xarnu bi mboolem si wal kibaar yaa tax ñu tabbi ci saxaar di wàcc tuuba ngën gi noppal nga gaayi xarnu bi mboolem si xaari wal kibaar yaa tax ñu tàbbi ci saxaar di wàcc tuuba ngën gi gaar noppal nga gaayi xarnu bi jumaa ji yaa ko taxawal yaa teemoon nax matal amiin war na waa xarnu bi yow la Suleymaan xamaloon carrière ba doj ya desoon jumaa ja bayti tabaxoon moom ngay defal waa xarnu bi daawoo da ban balay misaal baytil muqaddasi lanaal wuy ji boro mamba kamaal taaw ba defal ko xarnu bi ndombay nga yawoon ca maam yéy kokki ak ndaam boole nga ko nga daam rango amu ci xarnu bi muridi jox na lay hidaay tubaab yi jox la ay médaay sultaan nga boole koog wilaay yaa mën a tàggat xarnu bi yàlla na ngay muurum murit te yàlla booy muuram marit bi aqiqa xaadiril muriid ndax yàlla naatal xarnu bi yàlla na ngay muurum muriid te yàlla booy muuram mariid bi aqi xaadiril muriid ndax yàlla naatal xarnu bi yàlla na ngay muurum muriid te yàlla mooy muuram marid bi haqi xaadiril murid ndax yàlla naatal xarnu bi